salaamualeykum wa rahmatullahi barakaatuhu mbokku jullit yi ñuy seetaan yëpp ak mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, présenter man maay Abdourahmane Sarr pay nekk euh, secretaire national adjoint chargé des activités de jeunesse de COSCAS de la Hadra Seydi Hadj Malick dafa am nag projet bi nga xamante ni nañ leen koy euh, présenté tey muy infrastructure yi nga xamante ni moom moo nekk ci sunu xadra di xadratu malikiyat ak tuwaaniyat tuwaawaniya ak siddiqini ren nag ñu xalaate innovation bi nga xamante ne service valeur ajoutée la ñu waxtaanoon ceeg euh, xadara bi ba ak kilifa yi nga xamante ne nekk nañ ci ba ñu d'accord ci ci am benn numéro court bu ñuy tuddee euh, cent 111 léegi cent onze bi nag nii lay demee lépp li nga xamante ne am nañ ko fi comme collecte dañ koy verser waat rek ci travaux yi nga xamante ni mooy travaux xadara bi kon ñee euh, ñeen di demande yéen ñëpp incha allah SMS lay nekk SMS bi TIV la v nga envoyé ko ci 28 111 v nga envoyé ko ci 28 111 loolu nag pour abonné orange yi la coût SMS bi 1000 francs la mu nekk participation ci xadara bi participation ci liggéey yi nga xamante ne yëpp ñu ngi koy yëkkati ci wàllu xadara bi ci wàllu infrastructure am na tamit beneen compte bi nga xamante ne am na ci muy compte bi nga xamante ni CNCA la nekk di euh, compte COSCAS euh, mu numéro compte bi mu ngi nii ñu janool muy 00. 03 00 85 99 tiret 01 loolu tamit moom moo nekk compte bi nga xamante ne ñiy bëgg a participer par via euh, virement bancaire mën nañ participer foofu am nañ nag projet yu bëri lu mel ni ki éduculture euh, médiathèque bibliothèque grande imprimerie institut Cheikh Hadj Malick salle de réception bi ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni mu ngi ci biir xadara bi yi nga xamante ni am nañ envisagé réaliser ko fii ak cinq ans kon ñu ngi leen ciy lancer appel yéen ñëpp incha allah seen participation yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla bégal leen ci barke Seydi Hadj Malick barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam